mooy avec vous euh, ñi nga xam ne kumpa la ñu woon ci réew mi dañoo dévoilé au grand public gendarmerie l'armée ay mbir yoo xam ne ay mythe la woon comment en sommes-nous arrivés là. avec Macky Sall. c'est le principal responsable. ah non on était comme dans un état de siège. foo tourné nga gis ay camion gendarmerie foo tourné nga gis ay tenue gendarme finalement moi j'ai un frère qui est gendarme. Mhm. néew na fi ma ko gisee mu sol tenue parce que c'était un mythe. mm buy ñëw on revenait bu ma nekkee université on revenait euh, le week bu ñëw il vient en de sport bu xëy mu yóbbu tenue de sport bu eggee armée bu eggee camp ba mu sol parce que c'était sacré. Ouais. mais finalement Macky Sall da ko banaliser. est-ce que c'est pas Ousmane Sonko. Euh, a des am na est lu moom moo dem ba. xam nga xale yi sax ragaltuñ ñooñu en fait. non non non Ousmane Sonko. n'a ne s'en est jamais pris à une corporation. ci la dëkk ñun rek lu ne wax nañu ko dinañ ci ñëw après. non Ousmane Sonko ne s'est jamais pris à une corporation. gars yi ñooy extrapolé naan dafa saaga gendarme magistrat yi dafay tudd ay magistrat ne ñii. <laughs> da leen di nommé en fait. voilà dafa leen di nommé. il a beaucoup de respect pour toutes les institutions mais partout il y a des brebis galeuses. Mm-hmm. ñooñu ñoo ay problème am ñooñu ñoo ay. ñooñu nekkoon problème parce que xam nañ leen nguur gi bu bëggee def li mu bëgg. ñooñu lay utiliser du utiliser n'importe ki mhm. bu mu buggee faagaagal Karim Wade ñooñu lay utiliser. Mhm. ku ci bañ dàq nañ ko après mooy procureur Aliou Ndao ñu affecté la feneen fu sori. n'est-ce pas bu mu buggee faagaagal. Euh, Khalifa la même chose. bu mu nekkee ci tànk Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko quand même ce n'est pas un néophyte. Mhm. il s'est quand même dans le rétroviseur xam na fu ma gisal jaar ak ñële te foofu la bëgg a jaar ak moom muy jiitu muy mu koy. jiitu foofu mais à entre deux mille vingt et un deux mille vingt quatre li ci faatu li ci ñàkk seen alal kenn xamul nu mu toll. mais mais loolu aussi ça ne peut pas être la responsabilité de Ousmane Sonko xam nga lu tax xam nga jël nit un sénégalais lambda. Mhm. nga ne da koy faagaagal bokkul ak koo xam ne il est parti à l' élection présidentielle deux mille dix neuf il est sorti troisième ku nekk deuxième nga ne léegi mbuur ak soow la mais sénégalais ku ñu gis. le troisième. mooy Ousmane Sonko ñëpp jox ko bopp mais kooku. il y a un prix à payer si tu veux t'en prendre à lui. Mmh. Sonko n'a jamais demandé bu ñu wax ni Ousmane Sonko euh, dafay euh, def appel à insurrection mais lu ñu wax ñoom ci seen bopp bu ñu koy wax xam nañ. mais yàlla yàlla. Ousmane Sonko Ousmane Sonko ne peut pas appeler à l'insurrection parce qu'il avait les moyens politiques de prendre le pouvoir. Mm-hmm. boo amee les moyens politiques de prendre le pouvoir tu ne peux pas chercher euh, par la voie des armes pour prendre le pouvoir. mais...